bi nag fiñ ci toll euh, Touba xam ngeen ne fii la euh, maanaam kaa bi ñu njëkk a gis ci departement bi ci région bi sax fii lañ ko gisee buñ ko gisee léegi nag ñu ngi taxawu nit ñi ak di xeex feebar bi ngir mu bañ a jéggi dayoo euh, biñ ko gisee ba fi ñu toll nii tey am na ñaar fukki kaa ak ñett ñaar fukki kaa ak ñett yooyu am na ci ñoo xam ne ñu ngi leen yóbbu woon fan di leen fa faj am ñoo xam ne dañ leen téye fii ci Daaru marnan ñooñ ñëpp ñu ngi leen di taxawu ba fii may waxee amul kenn ku ci am ci wàllu wér yaram ginnaaw li mu am virus bi amul benn jafe-jafe ñu ngi nekk ci tànki wér dinañ def sax suba prélèvement pour def ay contrôle pour xool ñoom fuñ ci toll ndax feebar bi kat suñ lay faj am na diir boo xam ne su jotee foog ñu gëstuwaat xool ndax da nga positif wala da nga négatif loolu ñu ngi ci am na aussi ay kër yoo xam ne dañ fa nemmeeku woon ñu amee feebar bi ku amee feebar bi wala ñu ko amee kër yooyu dañ leen wax ñu beru bañ a jaxasoo ak nit ñi loolu ñuy wax quarantaine maanaam mooy ñu ber leen yee leen ba ñu mën a jël seen matuwaay bañ a génn di dem di jaxasoo ak nit ñi kër yooyu toll na ci ñaar ndax euh, këru ki nga xam ne moo njëkk a am feebar bi ak koo xam ne kenn ci ay njabootam moo ko wàll kon ñooñu euh, ginnaaw bi ñu leen defee quarantaine tamit Eh, yëkkati nañ ay ndimbal ci wàllu ay xéwal yu ñu war a jëfandikoo di leen ko yóbbul bés bu jot ngir ñu bañ a génn kër gi fexe nañ aussi ba seet ñi ñuy wax contact sujet contact mooy ñi nga xam ne dañu mos a daje wala ñu saafonte ak ko am feebar bi nga xam ne ñooñu dañuy njort ci ñoom ne ëllëg ak si ci diir bu toll ci ñaari fan ba fukki fan ak ñeent mën na am ñu wane màndargay feebar bi wala itam mën na am feebar bi laalu leen waaye comme loolu kumpa la dañ leen di saytu ci diir boo xam ne dina àgg ci fukki fan ak ñeent ngir xool ndax du jar ñu leen di yóbbu hôpital téye leen fa wala ndax dañ leen di bàyyi noonu rek loolu nag ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ndax xam nga contact bu ci nekk kaa euh, euh, bu ci nekk maanaam day am ay contact yu bëree baree bari ba pare dëkk ci dëkk bi ci ay barab yoo xam ne dañu dañu xaw a sorente waaye contact bu ci nekk nag dañ lay évaluer xool niveau de risque bi nga toll ñu xool ban méthode de suivi lañ lay defal loolu moom euh, service yi ñu ci àndal am nañ ci xarañte bu mat sëkk ba nga xam ne boobaak léegi am na contact yoo xam ne bi ñu leen di suivre dañu dem ba xaw a wone mandeger feebar bi ñu dem jël leen yóbbu leen analyser leen li ci ëpp nag dañu négatif waaye teewul ñu ngi continuer di saytu contact yi euh, wàllu yeete bi tam ñu ngi ciy continuer ñu ngi yeete ngir nit ñi xam ne feebar bi mu ngi fi te mën nañu booloo mànkoo ngir jëlee ko fi ci kaw euh, digal tegtal yi nga xam ne kër docteur ñu ngi koy wax muy wàllu raxas loxo ak di set ak di moytu di sëqat ci euh, nit ñi wala di nekk ci mbooloo di sëqat kuy sëqat nga jël mouchoir teg ko sa gémmiñ te su fekkee ni danga euh, maanaam da nga am loo yëg sa yaram nga teel a dem kër docteur ñu seet la di raxas loxo yi bu baax léegi nag am na yeneen mesures yoo xam ne kilifay réew mi jël na ko muy wàllu tere daje yu bari yi lu demee ne ay ngénte ay takk ak itam ay luumaak yu demee noonu euh, maanaam génn na ci benn dogal bu am solo ñuy am yaakaar ne dina tax ba feebar bi dootul bëri ci biir euh, Touba actuellement am nañ seize personnes yu feebar mm-hmm. yoo xam ne 17 euh, lañ woon sax mais kenn ki dafa wér ñu génne ko xale la dafa wér ñu génne ko ñi fa des ci ñoom am na 10 yoo xam ne defal nañ leen prélèvement pour contrôler ndax gisatuñ dara ci seen yaram seen yaram tàngatul sojatuñu sëqatuñu ñu bëggoon def prélèvement ndax xam nga bala ñu wax nit ki ne wér na dañuy def ñaari prélèvement yu xaw a euh, sorente ñaari benn ba ñaari fan prélèvement yooyu su dee ñaar yëpp dañ ñëw ne kii amatul doomu jàngoro bi ñu soog ko bàyyi mu génn dem kon ñooñu ñuy wax ne dañ leen entré daaru marnaan daanaka kenn amatu yaram bu ci bu tàng te fi mu nekk ñu ngi def ëllëg prélèvement pour saytuwaat seen yaram xool ndax doomu jàngoro bi mu ngi ci walla déet famille yiñ ber bu ji bu njëkk bi xam nga vingt-huit personnes loon mu ñaar fukki nit ak ak juróom ñett bële fukki nit ak ñeent waaw ñooñu ñu ber nag euh, ñu ngi leen di taxaw taxawaay yi ci war ndax mënoo ber nit ne ko toogal fii bul génn te doo taxawu ci wàllu li muy lekk ak li muy naan ak tamit li muy yittewoo loo itam service social ñu ngi ciy taxaw action sociale direction de laction sociale mooy profiter ci seen anten sax pour remercier leen tey yebal nañ fi ay ndaw indi ay ndimbal xalif bi ci boppam tam yëkkati na ay ay ndimbal yu am solo joxe ko ngir ñu taxawu leen ci mm-hmm. kon ñooñu na xelu ñëpp dal ci ñoom